jërë ngeen jëf gor ca wax ja Aminata Touré ko wax ubbi l'observateur premier ministre ba woon présidente conseil économique social environnemental ba woon di Aminata Touré moo doon def démb ab conférence virtuelle ak waa National Democratic Institute journal bi wax ñu ne ca waxam ja ba muy wax ba yegg ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ñuy wax ca la waxee ne Macky Sall amu ci droit ndax li constitution bi wax ci mandat ci présidentiel yi ci bopp réewum Sénégal dafa leer boole kookit moom nday mbili gi di Macky Sall ci boppam wax na lu dul benn du ñaare ne du def lu weesu ñaari mandat ci réew mi def na benn mi ngi ci beneen bu féegalee na xam ne kon pare na ci mandat ci bopp réew mi Aminata Touré ne askan wi ñoo war a takku taxaw ngir ñu respecté constitution bi ci réew mi ne gis nañu ci réew yu bari li nga xam ne moom la fa ngàppaaral ci mandat jur ci xët mu njëkku Le Quotidien mu di fa wax ne coowal troisième mandat mi ngi ci suñu ginnaaw La Tribune bind ne Mimi limité na mandat yu Macky Sall yi ci ñaar ba fàttali li mu waxoon keroog fanweeri

xamal ndaje mu mu amal diggam ak kuréel gii di congrès renaissance démocratique yéenekaay bi nañu ñoo ngi nas ci réew mi ak langue goo xamante ne ji lañ ca jublu moo di dajale ci kàngam yi gën a mag ci opposition bi ngir mën a jàmmaarlu ak Macky Sall Vox Populi dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba dolli ñu ne Khalifa Sall mi ngi xàll aw yoonam dajale ay nitam ngir ñu ànd taxawal ab front bu mag boo xam ne day ñàkkante ak Macky Sall la tribune mel na ku naan ñu guddi ñu na ko ndax am ko doy sëkk ak jur jàng ne mu jàngalekat yi di nappkat yi di borom yi ba ci étudiants yi ñoom ñëpp a enquête fas yéene guerre ak régime Macky Sall activiste bii di Guy Marius Sagna moo nekk ci xët mu njëkku las yéene kay la ko fa yóbbu moo di seeni mbir ñoom activiste yi ñoom la journal bi di waxtaane ba xamal ñu ne activiste yu bari ci déndub Afrique bi gis nañu ne ci ay ñool ñool la ñuy dëkk ne bu ñu leen xoqutalul dañu leen di tëj kaso baa ñu bari ci ñoom ci gàddaay la ñuy mujje mujj nañoo dàq magistrat bii di Habib Samba Lawbe Aw yëral xët mu njëkku la quotidien magistrat Habib Samba Lawbe Aw moo newoon avocat général près de la cour d'appel bu Ndar coowal jalgati jëm ci koppar yu fukki million ci tas loolee la ñu koy toppee journal bi nañu ci noonee ci la conseil supérieur de la magistrature daje àtte ko dàq ko mu jaare fa dem retraite kañ la ay kurpañ di retraité ci géopolitique bi ku xëy jàng xibaar bi ci xët mu njëkk suur foo jaar kon laaj lu ni mel yéenekaay bi nañu ca gaabu ga ca Bakel tuuti ko noon musiba mbaa kumba am fa démb ndax maire ba di Bokar Hamadi Si ak Hamidou Ba mi nga xamante ne ji moo jiite école gaabu 2 ñoo moo leen féewale ak lu ñu fa bëgg tabax directeur école ba ne du ca dal Issa Diallo di jàngalekat bu fekke woon yëf yi di témoigné ci journal bi ne maire bi moo saaga directeur ba ba max ko ba noppi génneel ko matrak maire ba di Bokar Hamadi si weddi ko ba mu set wecc nee na loolee du dëgg moom soxlawul jëlal ngànnaay jàngalekat boo xam ne matul nit xiibon xojongoon boo xam ne boo ko peese woon du mat ñeent fukki kilo